bëggu Ousseynou comme ni mu ko waxee sànq rek leen jaar leen leen yéen nga xam se ne yéen ñuy topp ci 24actu point com di leen jaajëfalaat bu baax ba euh, tey nag ku gis lii xam ne tey ji ñoo ngi waajal tey ji feet gu mag muy saint xam ne si ne mooy feetu mbëggeel di ñi tamit ñooy dund mbëggeel ñoo koy célébrer saa su ne di ko feetoo nag muy 14 février bu nekk nag tey ji tamit ñu daat ci dalal gan yu mag ndax ku ne xam ne tamit kee yëkkati na fi bay xal la tey ji loo xam se ne lu neex la dégg ngeen ko sànq Cheikh Abdou mi ngi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 tubarkalla kon nga eh, ba ci kanam ñu dara dara si waat tuuti. xam naa Mbaye eh, yow tamit dama lay yëngal eh, vraiment wax nga ne mbëggeel dañu ko war di ko feete bés bu set. bu njëkk Mbaye yow ki nga njëkk njëkk njëkk njëkk njëkk nga ko wax ak nu mu demee woon est-ce que mos na laa dal ñu woo jigéen ba mu ñëw nga ne pëccet bàyyi ko fa daaw. <laughs> léegi la gars yi wax ak jigéen. wallaahi bu njëkk. njëkk jigéen la ko wale ba mu ñëw looy fooy tàmbalee moo lay jaxal fooy looy wax. bu njëkk li ñu daan wax dóor dóor ko ay. ay séance dóor ko ay séance ak cëppal koog. <laughs> waaw. <laughs> gel fii mbal ma war koo cëppal. waaw. <laughs> maa ngi wéeru ca patlam bi nag di walis di kolkolo samay tànk. waaw. ndaw si ni kàccit bunt bi ni yaa ma woo. manit lay. dugalab la. parce que sëñ Bamba kër laa taxawee keroog. daw ndaw si gisante wu gisante wuñ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 ñu waxtaan fa ay quelque baat rek xam naa te la mbëggal nga tàmbalarul mm-hmm. ah non moom man barke Serigne Bamba sama soon nag bu ma la waxee dëgg ah, ah, ay mala la bëgg ak raw mosuma ko waxante ak moom ah léegi nag cofeel xamoo cofeel moom man ay maa la bëgg ak maa la raw xanaa mbay kon loo cofeel xamoo xamoo barke Serigne Bamba fàttali ko fu ma ko ko waxee ah du caaxaan xanaa léeg-léeg ma lëfar lëfari dem fa rek ba mu jiyaayam woo ma mbay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 da ngay gaaw li <laughs> may gis damay jékki tàng tàngoor waxani. ah kenn xamut lu muy doon.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 ah cuuraay la. kër gi ah këyitu kër gi waaw yooyu yëpp xam naa ko ay këyitu <laughs> soxna si tàmbal na la yooyu. ah xam nga sëñ Samba dama ko déglu mu ni. Mhm. góor boo bañ a taxawaalu. da takk ko la mat saytaane. Mhm. sama soxna dama mat seytaane moo tax falax falax ji moom mhm. néew ma si. bokk góo ci ah, déedéet. dal rek ànd ak sama sago. est-ce que kon xam nga tey yéen heure ngay pareel xam ne soxna si ma ngi lay xaar ci kër ga pour nga teel a wàcc mën a xam ne lu baax nga fay xaar. nga teel loolu mooy loolu yow yow am nga borom kër.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 fekk ma sama kër bu ma hmm. demut benn programme waaw euh, mbay sàppar sàppar amet naar amet lu mu def ba du nelaw amet naar lu mu naan ba du nelaw amet lu mu naan salaamaaleykum damay tàggoo wala waaw da nga ñuy wax ci amet lu mu naan ba du nelaw laa bëgg a xam rek ba pare nga doog a tàggoo waaw amet naar hmm. dafa jaay ay gileem ak ay nagam hmm. ba mu jeex waaye daa tëdd ak gaa yoo xam ne wóoluwu mhm. ñu mel ne Cheikh Doog Sall Bawol Bawol ak Thion boutique wóoluwu leen. Ahmed ci miir bi gaa yëpp tëdd. Mhm. Ahmed wéeru di wayantu. Mhm. Ahmed naar du nelaw Ahmed naar du nelaw Ahmed naar du nelaw Ahmed naar du nelaw Ahmed Naar du nelaw Ahmed Naar du nelaw ba mujj waay wi di gën a wàcc Naar du nelaw Ahmed Naar du nelaw naar xanaa somnifère la naan. léegi far nelaw. waaw. gars yi tekk caméra ba pare wat ko nel. <laughs> Ahmed bi mu yeewoot. Hmm. xool caméra bi yee aywa xaalis Ahmed naar dem na xaalis Ahmed naar. Hmm. bi mu kii nag ba yàgg mu ni nii làmbu. Hmm. dajut karaw ga mu ni alhamdulilah du Ahmed naar <laughs> tëdd maa ngi karaw du Ahmed naar. <laughs> voilà Mbaye sant nañ la gërëm la ma bàyyi la nga tàggoo laataa ñuy dem ci daam Mbaye. soo ma gisatul gisatul gisatul. di ma xalaat xalaat xalaat maam say juuf sa xol dana weeto soo ma gisatul gisatul gisatul di nga ma xalaat xalaat xalaatey maam say juuf sa xol dana weeto buy dem marché di ma xalaat buy togg